programme wise ñu koy wax solution sans fil ndax dañu néméku ci géej légui bu wax sécurité en mer donc état Sénégal daf ci gis lu rek gilet sauvetage lélé nak nag mu accompagner pêcheurs yi ci ay ay euh, moteur mais moteur yi pour que ñom ñu def sen activité de pêche la ndax moteur mono mono dem géej te moteur mais sécurité en mer dal gilet sauvetage la ñu ñun nag ci vie avec programme wise ñu ni solution sans fil moy ñu solu ñu régler ben solution te du am manam ci ay connexion mo taxone ci application Wise boobu ñu àndoon ci ak Intermonde di suñu partenaire àndoon ci ak FHI 360 ànd ci ak Qualcomm Qualcomm États-Unis la basé wu di suñu partenaire ñooñu ñu accompagner ñu jàppale ñu woon ñu ci programme Wise bi mu permettre ñi nga xam ni ñoom la ñuy joxoon ay smartphone mooy ay téléphone téléphone yoo xam ni dañuy ànd ak ay connexion ànd ak euh, nu mu tuddati eh, nga mën a woote ndax géej amul bànqaas te géej amul boutique.

gisoon nañ tamit e bureau exécutif cap ci lañ ko defoon jël ay carte de membre pour ko bëgg a bokk bokk ci à mille francs et eh, pour jaay ay t-shirt jaay ay lépp pour cap mën a taxaw créé tamit benn boucle whatsapp boucle whatsapp bi nag indi woon nañ fi benn fiche pour képp koo xam da nga nekk pêcheur bëgg di waxtaan ci waxtaanu géej di ci joxe sa xalaat ci wàllu dal te doo ci wax ci wàllu xiiroo ak ŋaayoo mën nga bokk ci groupe bi ti mën a di partager ndax météo yëpp ak information yi ñu koy mën a jot waaye tamit Euh, li nga xam te moom mooy ci li ñuy def ak euh, CMS bi nga xam ne moo fi nekk doon suñu loxo jotu suñu ginnaaw dañuy def def ay des groupes de diis jigéen fukki nit yu nekk wala benn nit bu nekk ñu facilité la ba bu fekkee ni danga am problème bantu gaal nga mën ko am euh, parce que pour nga liggéey waaye nag na nga fay ndax ñun ñooy jël lépp li nga xam ne dafay nekk ay ay ay ay ay garantie donc bu vous da nga am problème mu Nous ñu lebal la na ko dem nga fay ndax ñun dañ leen di yombalal rek pour ngeen mën ko am leen ko pour seen liggéey baax ngeen dem ngeen fay bu vous ay portable yi ñu joxé kenn fay le, dërëm dañ ko mayé te yalla rek tax may ko may leen connexion bi nekk ci biir weer may connexion pour 5 années at lañu am connexion te duñ ci fay dara juróomi at la ñuy am di wootante seen biir te duñu fay dara. bi boobu nag ñu bëgg a taxawal dafa am nu mu bindoo ndax cap bi taxawoon na bu yàgg ndax cap bi am na président moom mooy Lassana Sarr xam naa ne dafa porté woon excuse bi am na bureau am na euh, euh, trésorier moom moo nekk euh, Abdou Ndiaye cap bi am na président commission d'organisation moom moo nekk Seydina cap bi am na ay président d'honneur moom moo nekk suñu tonton Mbaye Ndour CAP bi am na président commission ressource ñi nga xam ne tey ñoom ñoo yore wàllu ressource bi tey tey ku mel ni Assane Fall ku mel ni Baara ndax gis nañ ni tamit à travers tamit li nga xam ne moom la ñu taxawal li tax tamit ñu bëgg a liggéey ak fédération nationale des plongeurs du Sénégal dañoo gis ni suñu programme bu ñuy def war nañ mën a war nañu mën a nettoyer géej gi ndax géej gi bëri na ay seleñ am na ay jën fu ñu xam ne doon mooy noonu am na ay jafe-jafe avec les yi fi nekk. dinañ mëna permettre jël benn journée dugg ci géej gi ak plongeur national yi fepp fo xamni dafa am sele ñu nuqati mbal ya fa nekk ndax mu nekkaat zone de reproduction jën mën ci dugaat te lolu dañ ko def rek pour yombalal liggéey bi mool yi ndax jën yoy ñuy ñàkk mën nañ ko amaat waaye tamit dinañ renforcer li nga xamni mom moy ZPP bi nga fi nek ci suñu plan d'action ñun kab bi ci 2020 bi moy ñom wa CLPA lañu am ñun dañu ñëw rek pour jappalé len ndax duñu ñëw rek pour pour euh, manam pour dire mbag muy de pêche acteurs mais en tout cas suñu objectif fédérer l'ensemble des acteurs que koo xam da ngaa nekk ci depuis bi ba jaay donc ci ci mbir jaay financement bëgguñu tamit nit di pour xaar moteur pour 1 million da ngay inscrire rek subscription après ñu àlli jël identification bu la moteur bi

vu ak constat gaal yi nga xam ne seen i mbaal yi dañ koy dugal ci biir géej gi jéeg saa mu am ay seleng yu ko jàpp ñu am ay jafe-jafe ci wàllu eh, plongeur dinañ jéem a waxtaan ak plongeur comme Baar ak ngeen ñu fi nekk kuy waye fayati quatre-vingt mille ñun la ah ñun jël nañ en charge kat vingt mille francs yi suñu kees dina ko fay waaye Baara moom dina teggi moom it ba mool boobu sax bu amee trente mille sax dinañ ko nuurul mbaalam mais nag ku bokk ci kap nag damay wax lu leer ku bokk ci kap kese la Ouais, tamit dinañ menons ay activités de formation et de renforcement de capacité ndax ñiy soppi jën nekk ci biir gis nañ ni hygiène ak qualité des na si ñoom dinañ trouver ay solution à xam ni comme que demuñu géej te jox nañ leen ay portable ba ñu mën am clients de client dañuy renforcer portable yi waaye demain, tamit si nekkin bi ñu de dinañ trouver ay solution pour indil leen li nga xam ne ñun suñu contribution la pour ñu faire leen les mbaar yi defaraatal leen lu ñu mën pour que ñu menons a gën a jaay jaay Ben, nous jàkk beneen mon si tey bu ñu waxee nettoiement gis nañ ni géej gi kat dafa dégradé wu espace bi surface plage bi yëpp moo li tamit seen jëmmi bopp képp koo xam ne am sa gaal li lay war a sóoli ndax gaal bi dematul géej gaal gi baaxatul li lay war a sóoli ñu am gis-gis culture déplacé gaal yooyu yóbbu leen fi nga xam ni du déranger kenn espace yi amatu fi ndax boo xoolee boori géej gi moo des ku bëgg weer sa mbaal mën ko weer ku bëgg doxantu man doxantu mais bu ñu bàyyee gaal goo xam ne dematul benn yoon ci kaw tefes te ñun rek ñun rek ñoo ko fa mën a dindi te ñun ñu bàyyi ko fa jàpp naan day gën di der day gën di indi ay jafe-jafe rek ci plage bi. ak ci wàllu sécurité en mer ñu xam ni mool yi tamit je pense que eh, Baara dina ci wax. ñu xam ni ñoom ñooy njëkk am seen sécurité bopp ndax nit bi tamit mënoo gis benn gaal am na fii barki démb rek si si euh, euh, ci quai de pêche gaal bu amul inspecteur amul gaal da nga war a am inspecteur ci sa à nga xam ne bu sa moteur tàkkee nga mën ko fay avant dara ndax biir géej du bànqaas amul fooy gaar naan xaar ma woo diw donc loolu yëpp ay solution la tey da gis benn gaal boo xam tamit day dem ak benn nit nga xam ne tey fa muy nekk bëggul kenn ku ko fa fekk ci xeer mais foofu amul boîte à pharmacie amul dara mais benn comprimé boo xam ne tey mën na ko xañ benn coof benn comprimé bi mu doon naan rek pour bopp bi sedd mën na ko xañ benn coof bi nga xam ne waroon na ko teeral kon boîte à pharmacie di ko gànnaayoo dina permettre yow mii di napp wala yow mii di dem géej jamono jaww ji nga xam ne da am malaise ñu xool lan moo ci benn comprimé nga mën a jël naan ko nga mën a nekk moom moo gën ngay méttit lu loolu ci biir géej ba toll fii. ni ñu leen joxe woon ay téléphone nan la ñu leen di joxe ay émetteur mais émetteur tamit toujours li ñuy waxaat rek moom mooy kenn fay ci dara mais nag équipe bi moom mooy sélectionné yéen yéenay xool man damay wax rek indi leen damay wax rek lii de baaxoon la. nous tamit am confiance di indi waaye yéen ñi ñi dénk nag ngeen di xool ngeen bañ def ay parparlo ngeen xool ni mu gën a ak ni mu gën a ngeen jox ko ñooñu ñooñu jël ko utiliser ko te mu xam tamit mënul donc loolu daal petit résumé bi nga man en tant que initiateur. nous ñëw ci jotaay bii dëgg yàlla di nga xam ne yéen yi ci ku ko yóbbu woon assemblée ba la nga xam ne Sénégal pencum pencum pencum réewu Sénégal la assemblée nationale ku fa yóbbu woon li ngeen wax nii tey mooli Sénégal yi nekk ci dëkk yëpp jëfe ko Sénégal suqala ko waat bu fekkee ne jëfe nañ ko laa wax nag bu fekkee jëfe nañ ko ndax ba it wax it lu mu neex neex lu mu baax baax boo ko jëfewul ah njariñ du bari njariñ mais billaahi laa wax te mooy ngiñ li ma dégg fii te gëm naa ni ni ma ko déggee ñu bari noonu lañ ko déggee ku ko waxoon ci pencum ndawu réew mi muy assemblée nationale wallahi tàllaahi bu ci waa senegal yëpp tënkoo ñiy dem géej wallahi mu defar Sénégal. démocratie la ñu nekk mais démocratie dafa am lu koy tingoom pour mu mën a dem mooy yar teggin ànd ak teey muy ku mag ki muy ku ndaw ki parce que yow miy mag balaa ngaa mën a yar. da ngay yaru waaye ku ndaw ki balaa man ñeme mag wala mag xëcc ci moom moom tamit day yaru kon foog ñu ñëpp ñu yar suñu bopp d'abord doog a sol suñu casque yar boobu génn ak moom ci penc mi penc maa ngi nii. nit ki mooy sécuriser boppam parce que tey pour wax la rek nit ki suy dem géej war na man fonk gilet de sauvetage war na man fonk joow bi mu yóbbu géej mais man li ma gën a jaaxal léegi mooy mool yi bu ñu doon dem géej euh, mag ñi bu ñu daan dem géej bu dee gaal gu ndaw bu dee juróomi moole ci ne juróomi joow a ngi ci mais léegi da ngay taf gaal benn joow du ci ne am gaal yoo xam ne danga koy taf dañu du ci ne kooku tey bu machine bi bañee fu ñu jëm mais sànku tey am yëpp yëpp yëpp yëpp nit ki day dem ak xelam mool buy dem géej war na yor la nga xam ni su gisulee euh, su gisul ko ko sécuré mu sécuré boppam parce que bu njëkk gaal bu mosaan a paan day jox ba taf moroomu gaalam mu lës ko mais léegi bu gaal gi paanee maareetaal yi kaabal bu baax sax doo ko yor. bu ñu gëmee ne accident yi bu ñu bu ñu fekk ku dee rek ñu ne ndogalu yàlla ndogalu yàlla dañuy jeex ñun ñëpp si géej nañu gëm ne am na taxawaay bu ñuy taxaw ci kàntanu yàlla yàlla daf ñuy dimbali accident day wàññeeku. ni muy amee si tali bi bi jël si ay mesures mu am feneen ñoo ñu jël si ay mesures mais ñun nañu jël ay mesures si géej gi ñun mool yi d'abord ñu gëm ne accident yooyu mën na wàññeeku. ñu gëm na tamit mën nañ jàppale suñu bopp comme li may faral di wax ba ku nekk fekk ñu si mën nañ jàppale suñu bopp parce que yàqu-yàqu yu bari na matériel yu géej ku nekk xam na seer na waaw léeg-léeg gaal nekk fii toog ay fan du dem géej sutura rek moo koy téye mais essence bu ko yóbbu géej sax da koy téye te war nañ mën a mobiliser wu ba tamit yooyu yëpp mën nañ waxtaan ba am trou yoo xamante ne mën nañ ko fatt ba bu ñu bëggee jóg dem géej dem géej bon gis nañ ne ñun suñu yaakar parce que gis nañ ne napakat yi aussi benn côté metti na si ñoom léegi te gis nañ ne lu mel ne fi seleng yi fi nekkoon di am ay bër ay yeneen façon jën yi mbaal yi fa nekk bari na moo tax jën yi mënatu faa dëkk ñu gisoon ne tey jii bu ñu mobiliser woo par rapport ak am nañ benn union bu ñuy wax union nationale des plongeurs du Sénégal wax naa ko grand salle seet naa ko mel ne suñu papa Thierno Gueye waxtaan ci ak moom tey jii travers fii yaraax bëggoon nañ fi ñëw pour def fi set setal mais amuñu woon yoon bu ñu jaar ñun ñëpp dañoo jubóowul ku ci nekk yaa ngi demal sa bopp parce que tey jii

des bi mu des bi nak moy lolu moy indi difficulté Ibrahima Sall ak ku melne ne dañuy taxaw ni jappale len mool yi mais so amee njaboot mu tasaaroo mu tasaaroo des fois jappale bi fay des. parce que bu ñëwee dañuy rawante gal mën nañ ci def lu nek parce que bu job mbay taxawé kese mom kenn mairie bi jël limuy jël ne a ah, teg ci loxo Thierno gay, Thierno Gueye teg ci loxo xalé yi loolu mo fi ma sam am yi nek fête bu mujjee bi fi liñ ko ci place bi liñ ko mais kon loolu ngeen fexe ba ànd ci loolu fexe leen ko ba ànd quai de ñi fa nekk ñi seen ay mag lañu seen ay nijaay lañu dafa am ñu ko yëkkati woon teg seen loxo leneen ak leneen CLPA nekk parce que CLPA lu lépp lu jëm ci wàllu géej gi moo koy saytu mais bu ñu xasee ba teg seen tànk ci kaw léegi quai responsable quai de débarquement yi ñoom la seen responsabilité di engagé kon ci géej gi ci joor gi yëpp mool li am nañu ay kuréel yu ñuy waxtaanee mais dañ leen wax ni leen. état aussi dafa am nu muy doxee dafa am nu muy tëddee ot état dafa jël UNAMS FENAP jël CNP CNPS jël FENAGI ni ne yooyu ñooyu kuréelu fecceer yi nga xam ne si yooyu bu ñuy dem tey ñoom ñooy organiser wu kuréel yi war si mën a taxaw ba démb Sadio ma ngi koy waxaat di ko rappeler fexe leen yéen xale yi ku si nekk ngeen dem si kuréel yooyu ngeen taxaw ba bu ëllëgee représentant wu CAB yi ñu mën a taxaw parce que li ma leen gis ngeen koy wax ak di ko dox suñ leen dénkee bu ëllëgee man ngeen indi soppiteeg changement